العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين alhamdulilah am na ay questions yu fi jot a wax incha allah ñu jukki si rek mbokk bi euh, Oustaz Omar li muy laajte mooy nga waxal ko lenn si ngëneelu xam-xam ak Qur'an. alhamdulilah rabbil alamin ngëneelu xam-xam ak Qur'an daanaka benn la. maanaam boo waxee ngëneelu Qur'an wax nga ngëneelu xam-xam. alquran bokk na ci ngëneelam xayrukum man taallama alqur'ana wa allama xayriya googu nag day dellu ci ki jàngale alquran te xamle ko jàngale alquran mooy jàngale yax bi xamle ko mooy xamle jëf ji kon ci xeet bi kooku du yomb gën kiy jàngale alquran te du ko jëfee kon nag ka jàngale alquran te jëfewu ko am na ngëneel waaye du àgg fa kee àgg beneen bi bokk na ci ngëneelu alquran yaa Aïcha radiallahu anha nee na yonent bi nee na almaahiru bilquran kooku maa safrati alkiraami albarara walladi yaqra'u alqur'ana wa huwa alayhi shaaq wa yatataata lahu ajran nee ki mën alqur'an di ko jàng yowmal qiyaam day am laaf moog malaaka yi ñooy ànd di siyone fu malaaka jëm mu ànd fa ak ñoom kon qur'an moom daraja jooja ki ko mënul di jéemantu nag di alif baa di jéem kooku am na ñaari fay am na fayub àdduna am fayub àllaaxira te lépp moom mooy dem àjjana bokk na ci ngëneelu xam-xam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni yonent yi ki leen di wuutu mooy jàngkat yi borom xam-xam yi nag ñooy wuutu yonent yi mooy ñi jub kon xam-xam bokk na ci ngëneelam di ko sàkku foo toll te boo koy sàkku yaa kiy jihaad yéen a tolloo boo génnee sa kër di dem di jàngi benn masala wala ngay jàngi benn téere moo xam naxwu la luga la wala beneen jàng la yonent bi nee na malaaka yi dañu lay ñaanal texe ndax danga amee fayub koo xamante ni dafay jihaad lan moo tax xam-xam am njëriñ seytaane buggul ko am xam-xam su ngeen gisee bidaa bëri ñàkk xam-xam moo ko sos ku bëgg a jaamu yàlla te amul xam-xam kooka mooy sos bidaa borom xam-xam iblis du la bëgg jamono bu nekk daf lay xeex bokk na ci njëriñu xam-xam ci ngay mën a jottalee kàddug yàlla bokk na ci njëriñu xam-xam ci ngay mën a amee sakina ci ngay mën a dalee bokk na ci njëriñu xam-xam da ngay dund sutura booy jëfee xam-xam dund sutura dund sutura su ma ko doon firil mooy néew na borom xam-xam yi koo cee gis di ko yërëm te ñu mat a yërëm lañ nag ndax boo xamoon seeni i vie privée xam seen i mbir da nga xam ni ñii ñu amee jafe-jafe lañ da ko xam waaye nag léeg-léeg nit dana ñëw ci yow wax la loo xamante ne dalay lay yéem. Cheikh man Ahmad Lo wax na ma benn wax da ko wax ba pare ndeysaan ñu ree ñu ree ma ne ko pour pourtant dafa may dal ma ne dafa am ku ñëw fii daal dama di ma di ma leb millions ma ma yëngal sama bopp ma ne kii kii xamut li xew waaw kii xamut li xew man man li may am damay fortaatu comme ñoom di jënd di jaayaatu ma ne ko man mii de bu yàggu rek am na ku ñëw ci man ne ma ne ma naa ko lebal 2 millions bi mu ko waxee man ko ah fii ma lay waxee nii de. ah tey de yàlla dimbale ma am naa ndékki am naa ñu am naa reer waaye lu suba moom amaguma ko dafa dem di wax waa këram oustaz dafa bañ dafa bañ am na dafa bañ nga sutura yu mel noonu nag dafa nekk ci xam-xam waaye xam-xam boo sonnee ci uti ko sonn ci jëf gi moo gën ut bi ut ko te jëfewoo ko baaxul kooku yowmal qiyaam du waxaale ki jàngoon te jëfewu ko suy ñëw rek butit yee génn laxas ko mënoo teg ko rek ñu dugal biir safara wala yaasu billah kon jàng dafa am ay danger loolu ci gàttal ban mën nañ ko gën ci njëriñu xam-xam incha allah. mbokk bi moom nee na radiyallahu anhu bi wax boo tuddee gannaaw bi nga tuddee turu saxaaba mais ndax loolu dañ koy boyal wala si ñoom rek lañ koy. ci ñoom rek la yem suufiya dong nga koy defal seeni nit mais gis nga radiyallahu anhum kooku lan moo tax ñu koy def laqad radiyallahu anil muminin yàlla moo ni gërëm na saxaaba yi yow ba nga waxee ba tey gannaaw ñooñu de yàlla gërëm na leen. waaye yow sëriñ bi waa ji lu mu def ba yàlla gërëm ko wala yàlla dala ko wax kan moo la ko wax kon yemal ci rahimahullah waaw mais radiyallahu anhu booy luñ ko alhamdulilah bi moom nee na kullu bidaatun dalaala ndax loolu day tekki maanaam mbooleem bidaa yi rek mbooleem bidaa buñ nee bidaa nag mooy lu jëm ci diine bidaa yi nga xamante ne dafa jëm ci luga ak li jëm ci suñu dundin yi masalan caaya saxaaba yi xamuñ ko woon kon bidaa la ci jëf pantalon xamuñ ko woon mais lépp lu jëm ci suñu diine waxoon naa ko ci dars bi passé yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na lu jëm ci seen diine man la ci yàlla yónni lu ci jëmul nag seen mbiru bopp la kon bidaa ci diine moom kullu bidaatin dalaala wa in raaha nnaas xasana bépp bidaa réer la doonte nit ñi dañoo gis ni rafet na dafa ñaaw alhamdulilah mbokk bi moom nee na ndax dina dagan si benn ay travaux yoo xam ni euh, dañu war a tabax masalan benn arène ñu ne ko nag mu ne ñëw pour superviser ndax loolu dina dalal waaw xam nga xam nga métier la su fekkee dañu ko embauché ci métier bi muy liggéey ci loola ay kilifaam sant ko ko mënta bañ mais bu fekkee liggéeyu boppam la nga xam ni mën naa am leneen lu gën loolu bañ ngaa def moo gën. mbokk bi li muy laajte mooy euh, jàkk naka la war a toftalee sàpp yi sàpp yi naka la war a toftaloo. sàppe jàkka mi ngi tàmbalee ci li tolloog imam. imaam bu taxawee li tolloog moom fa la ñu tàmbalee jëm su ñu jëmee ndeyjoor ba mu jeex ñu jëm càmmoñ ba mu jeex kii ñëwaat deuxième sàppe bi ci digg bi lay taxaw mais doo dem ba ca cat ba jëlee foofu ci digg bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li yaliyani ulul ahlaami wan duha borom xel yi ak xam yi ñooy den ak man loolu ci lañ taawil ne sàppe tàmbalee malaaka yi bu ñuy jël jëf di tàmbalee ndeyjoor tekkiwu ne da ngay dem ca ndeyjoor mais dañ koy sàppe mais sàppe ci digg lay tàmbalee Euh, mbokk bi nee na ndax euh, nit ki sañ naa may doomam ku mu bëggul. sañ naa may doomam koo xam ni bëgg ko daal. sañ na ko waaye gënu. xam nga sa doom yaa koy maye mi ngi mel ni jël sa xaalis may ko ku koo bëggul mun na nekk. waaye da nga ko ndax benn saxaabi ya ñëw na ci yonante bi ne ko sama baay may na ma ku mu bëggut yonante bi woolu baayam mu ñëw mu ne ko lu tax nga may ko ku mu bëggut baayam ne mbokk la yonante bi ne ko tasal sëy bi nañ ko ne ko delloo xaalisam ndaw si delloo ko xaalisam xam dafa am bakkan day dund laal dafa xat ñaar awus bi rafetlu laal dafa xat ñaar ñu bëggante nag ñoom ñoo fa xat kon boo jëlee sa doom fitnaal ko may ko ku mu bëggul yaa ngi koy lor yaa ngi koy yóbbu safara kon sëy moom mbëggeel moo koy laal. tey mbokk bi moom li muy laajte mooy ñaar ñi àndoon doon caaxaan est-ce que ñoom buñ tuubee mën nañ den dencante. ah waaw waaw ñoo àndoon caaxaan kay dencante moo gën a ko ne xam ne moroom ma. su ko defee seen ànd moom mooy gën a baax xam nga boo gisee alquran wax ne azaniyatu la yankihuha illa zan aw mushrik loolu la parce que ñaar ñi xamante du ñu xasante mais tey di yow boo mus sa njaaloo takk ku jigéen ju mus sa njaaloo wala jigéen ju mus sa njaaloo sëy góor gu mus sa njaaloo jékki ñu wan doom fii ne diw moo ko amoon te ci tax xam nga xel dootu dal mais bu fekkee yéen ñaar kiif kiif la golo waxoon maa ngi yow yam bakkan bakkan nopp nopp kenn doxas morom ma kon bu ngeen boo bëggee wax boo ne i mu jeex alhamdulilah kon lii dafa am ay jigéen ñu ñu am conférence fële mooy waa IFEM ñuy sàkk pour ñu yëgle leen ko suba la incha allah man ak Ahmad Diop ñu ñoo leen koy defal ci islam et polygame mais jigéen rek nag la concerné Ablaye jigéen rek la concerné pour ñi ci bëgg ñu incha allah à partir de 11h incha allah.